الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ginnaaw sant borom bi subhanahu wa taala cant gu yeew ak màggaayam ñu julli ci suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla bu yàlla dañ di dotti xéewal ci moom ak i saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seen yoon wu jub boobu ba keroog bés penc daal di taxaw ginnaaw loolu ñuy dellu di ko santaat moom buur bu màgg boobu nga xamante ni ci mbaaxam ak yërmandeem lañu bàyyee nekk ci kaw suuf waaye ci mbaaxam ak yërmandeem lañu baaxee ñu toog fii ngir fàttalante lenn loo xamante ni dafa jëm suñu wàllu diine ñu dellu di ko sant moom borom bi nga xamante ni moo ñu boole ci ñi nga xamante ni dañuy jëfee wax gi nga xamante ni moom la doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko fa dakkir fa inna dikra tanfau lmuminin mu ne ko fàttali ndaxte fàttali dafay jëriñ ñi nga xamante ni moom mooy ñu gëm ci kaw loolu la suñuy mbokk suñuy mag ak suñuy rakk ña nga xamante ni ñoom lañ bokkaloon di jàng ci arab bi nga xamante ni mu mooy arab oustaz Abdul Karim Gueye rahimahullah te ki ki nga xamante ni moo fi nekkoon suñu sëriñ di ñu fi jàngal di oustaz ba maam ci loolu ak ci jëfe la nga xamante ni moom lañ jot a taataan ci xam-xam ak ci bëggal li nga xamante ni moom mooy seen bopp yiw ak ñi nga xamante ni mooy dëkkandoo yi ci kaw loolu la ñuy taxawalee lii nga xamante ni moom mooy conférence annuelle bi di am ngir ñu mën a fàttalante leen loo xamante ni dafa jëm suñu wàllu diine kon ñu leen di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo seq ay jéego ba conférence bi daal di mën a taxaw ñu leen di wax jazakumullahu xayran ñu nuyu képp koo xamante ni it bàyyi na li nga xamante ni moom mooy ay yitteem ñëw daal di toog fii ñu jiital ci nuyoo boobu suñu papa bi nga xamante ni moom lañ tuddee conférence mu daal di bàyyi ay itam yëpp daal di fi teel a ñëw daal di fi njëkk ñëpp ñoo xamante ni ñoo fi ñëw kon ñu koy masaw li nga xamante ni mooy coono te di ko ñaanal borom subhanahu wa taala fay ko bépp jéego boo xamante ni seq na ko ba yegg si fii mu daal di koy fay ay tiyaabo yu bare bare bare ginnaaw loolu ñuy am mbégte toog fii ak suñu sëriñ suñu oustaz bokk ci ñi nga xamante ni ñii njëkk a toog ci li nga xamante ni moom mooy seen suufu keppaar di taataan di jàng li nga xamante ni mooy diine borom bi subhanahu wa taala ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala fay ñu ko gën gi màgg bi nga xamante ni moom mooy fay ñu amoon yéene nag toog fii fàttalante ci ñaari sujet yoo xamante ni mun naa ni benn sujet bi rek maanaam ëppoon na li nga xamante moom mooy ab thème waaye mbokk yi daal di koy boole def ko ci li nga xamante ni moom mooy benn li nga xamante ni mooy jotaay lan moo waral loolu parce que dafa fekk ni que ñaari benn mënul dem bàyyi beneen ba parce que ñaar yooyu dafa am li nga xamante ni moom mooy li doomu aadama bi di njëkkee ngir mën a nekk li nga xamante ni mooy jullit muy ñaari baat seede yi di li muy wax ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaari yi kon benn mënul dem bàyyi beneen bi mu am it ñaari mbir yoo xamante ni seen contraire lañ yoo xamante ni dañuy yàq li nga xamante ni mooy jëfu doomu aadama bi yoo xamante ni dañuy neenal li nga xamante ni mooy jëfu doomu aadama bi kon dafay baax nit ki xam la nga xamante ni moom mooy contraire la nga xamante mooy mbir yooyu noonu ngir lan daal di koy mën a moytu comme la saxaaba ba doon wax naan mu ne alimtu charra laa li charri walakin li attaqi mu ne bi ñu doon nekk di jàng baax man dama doon jéem a jàng la nga xamante moom mooy mbon lu bon ngir ma daal di koy mën a moytu mu ne ko jànguma li nga xamante ne lu bon la lu yàlla araamal la ngir nekk ci waaye dama koy jàng ngir xam ko ndax mu mun koo moytandiku parce que nit ki su xamul ni que lii baaxul kon du ko mën a moytandiku kon suñu waxtaan tey dafay nekk ci ñaari mbir bi si njëkk moom mooy li nga xamante mooy ashirk te ñu koy wax ci wolof mooy bokkaale borom subhanahu wa taala beneen bi nekk li nga xamante moom la ñuy wax al mooy bidaa mooy di jëf ci li nga xamante ni diine dafa wuteeg li nga xamante mooy njàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu ñëpp xam nañ ni que diine gi ci ñaari base yooyu la tënkoo mooy jaam borom subhanahu wa taala dong daal di koy kennal waaye teg ko ci li nga xamante ni moom mooy sunna su leer jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp loo xamante ni dafa wuteeg loolu rek day yàq li nga xamante moom mooy jaamu yàlla doomu aadama bi kon dafay baax doomu aadama bi xam ko ndax mu mën a tënku ci li nga xamante ne moom mooy diine boo xamante ni gu wér la nga xam ne yàlla bu subhanahu wa taala bu dee ci sujet bu njëkk bi la muy bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jàkkaar lool ne ko wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablik mu ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wa la takunanna min alxaasirin mu ne ko gis nga yéen yonent yi li ngeen di màgg yëpp mu ne ko gis nga ni ma lay wax yoon yi noonu laa ko wax yow woon yonent yi la jiitu woon man leen képp ci yéen koo xamante ni bokkaale na ma danaa mabbal li nga xamante mooy ay jëfam te dana bokk ci ñi nga xamante ni dañuy perte kon nit ki bu fekkee ni que yàlla yonent bi la takku ci mbir boobu waxuma la keneen ku dul ñun war na góorgóorlu kon xam ko ngir daal koy moytundi ko waaye ba tey yàlla bul subhanahu wa taala di wax ñi nga xamante mooy jaam ñi mu ne fal yahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim mu ne ñi nga xamante ni dañuy wuteeg li nga xamante mooy ñàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñooñu nañ moytu balaa fitna di dal seen kaw mbala li nga xamante mooy mbugal gu tar di dal seen kaw kon wuteeg li nga xamante ni moom mooy kenn borom subhanahu wa taala ak wuteeg li nga xamante mooy njàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ñaari mbir yu doy waar yoo xam nit ki war na góorgóorlu ci xam ko daal di koy moytandiku kon ci importance boobu lañu choisir woon ñaari thèmes yooyu jox ko ki nga xamante mooy suñu ustaaz suñu sëriñ ñu bàyyi ko incha allah mu dugg si ñu koy ñaanal borom subhanahu wa taala yàlla na borom bi dëgëral li nga xamante moom mooy làmmiñam waaye ñun ñi nga xamante ni ñooy taataan yàlla ibbi suñu dënn ba lépp loo xamante ni dégg nañ ko fi njub ñu daal di koy mën a jël suñ ko jëlee ñu daal di koy mën a jëfe loolu la ko yombaloon borom subhanahu wa taala tafadal ya ustaz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi am mbégte ak kontaante dajeg yéen ci keppaar gi ak ci kanamu kilifa yi toog suñu wet ñu leen di ziyaare bu baax a baax a baax di ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu koor yal na ko yàlla nangu lu nu jaamu yàlla ci weer wi mu tuuti mu bari yal nañ ko yàlla nangu lu nu tarxiis yal nañ ko yàlla jéggal noo ngi ànd ak yéen ci tomb bi nga xam ne moom la saalax wax léegi-léegi mooy ashirk wal bidaa mu nekk ñaari tomb yoo xam ne tey li yàqal jullit yi ci kaw suuf yépp ñaari tomb yii la ku duggul ci bii yaa ngi ci bii yenn saay sax nga gis ku nekk ci ñaar yépp yenn saay nga gis ku góorgóorlu ci biir rëcc ci waaye beneen bi daal di koy kepp mu nekk ñaar ñoo xam ne day yàq jaamu yàlla moo tax dafa war nekk yitte jullit bu nekk nga xàmmee ñaar yi mooy bokkaale ak bidaa dafa nekk warugar ci góor ak jigéen ginnaaw ba nga nekkee ab jullit nga góorgóorlu sa kemtalaayal kattan nga xam ñaari bàkkaar yi ndax nga mucc ci ndax loo xam ne day yàq jaamu yàlla bal sax am na ci boo xam ne boo ko deewaalee doo dugg àjjana loolu ñëpp war nañ koo xam te tey li doy waar ndeysaan nit ñi xam nañ lépp luy gàllankoor seen dund nit ñi xam nañ ko lépp lu bëgg a yàq seen dund taxaw nañ pour ci kanamam pour jële fi loolu waaye li war a yàq seen jaamu yàlla kenn xamu ko muy lu doy waar bu ne tey dëkk bi dafa am ay agresseurs yu fi nekk di tere nit ñi am jàmm ndax nit ñi dañuy tëdd bàyyi ñooñu dañuy jóg taxaw jàmmaarloo ak ñooñu ba ñooñu bàyyi dëkk bi nit ñi wéet nit ñi am jàmm su ne dëkk bi amul courant ñëpp taxaw ñi di marche baare tali góor ñeeg jigéen ñi génn ba autorités yi taalal leen courant bi su ne dëkk bi amul tali ñëpp jóg di marche di baare tali bañ defar ba di baare mbedd yi bañ defar tali yi suñ ne ndox dafa coupé ñëpp jóg suñ ne courant dafa coupé ñëpp jóg kon nit ñi seen dund ni mu leen intéressé war na noo góorgóorlu mbokk yi ba jaamu yàlla yitteel lu ñoom ku mu doon ci ñun war ngaa fexe nga xam lan mooy bokkaale pour nga mucc ci nga xam lan mooy bidaa nga mucc ci pour sa jaamu yàlla bañ a yàqu mbokk yi li gën a rëy bi yàlla bindee asamaan ak suuf ak léegi bàkkaar bi gën a rëy ñu tooñe ko yàlla ñu moye ko mooy bokkaale moo tax suñu borom subhaanahu wa taala melal ko ci qur'an ci suratu luqman ba luqman di dénk doom ji da ko ne yaa bunayya laa tushrik billah lu ko waral inna shirka la zulmun azim ngalawaay yow sama doom maa la jur de ci sama biir bii maa ngi lay moytandikuloo di la yëgal ni noo mën a def foo mën a toll góorgóorlu ba bul bokkaale yàlla bul dendale yàlla ak lenn bul bokkaale yàlla ak kenn tegal yàlla seen place am yàlla bul ko dendale kenn bul ko bokkaale ak kenn lu tax moom baay ji mooy yegg di doom ji ndeysaan mu ne ko inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ gu rëy la bokkaale tooñ gënta rëy nga dendale yàlla kenn ak lenn tooñ gënu ko rëy moo tax mu ne bàkkaar bi gën a rëy bi yàlla bindee asamaan ak suuf mooy bokkaale mbokk yi pour ngeen yëg ne bokkaale dafa dafa dafa doy waar mooy xoolal tey yéen ñi nekk ci keppaar baas bi yor ay soxna ñi nekk ci keppaaru baas bi laa wax yor ay soxna nekk ay borom kër kenn ci yéen bu wàccoon tey 6 heures mu ñëw fekk lalam ab góor jaaxaan ci ñu koy peñeel sikkimam mu ne soxnaam kii kan la mu ne ko kii moo aye tey looy sentir yow moom lan ngay yëg foofu nga taxaw nga jàkkaarloog waa ji tëdd soxna si we nekk ci wetam di peñe sikkim bi lan ngay sentir mbokk yi naam ku ma tontuwaay lan ngay sentir fekk nag yaa ngi yor benn arme sa poos wala jaasee ngi la jege wala sémmiñ wala mbolde wala kuurug roof nooy def da ngay dóor waa ji lu tax lum la def lu la waa ji def ba nga koy dóor ah parce que sa soxna def laa bokkaaleeg beneen góor ah sa soxna def laa dendaleeg beneen góor léegi yow neexu la ba nga jël yat ba nga jël mbolde ba nga jël pistolet léegi nag nga bëgg a jël keneen dendale koog yàlla loolu kese la nga bëgg a jël keneen xoola jigéen ñi tey boo leen takkalee wujju dañuy xëm gis naa ci facebook yi koo xam ne dañ ko fekk muy takk xar bi ñu ne ko yow de sa borom kër de takk na tey soxna beneen mu bàyyi doom ji dem jël bàyyi xar bi mu yeew doom ji boot boot béy bi mu boot ko waaw ñu naan ko an jene ba ko mbattaani ah mu boot béy bi rak rogganti ko yeew doom ji kooku xam nga ne dem na nekkatu fi kooku lan lañ ko def parce que dañ ko utal wujj rek mu def loolu léegi nag yow nga bëgg a jël keneen dendale koog yàlla sa borom mi la bind yàlla mi nga xam ne bi mu lay bind kenn fekkewu ko bi nga nekkee sa biiru yaay yaag moom dong yéen a fa nekk fii zulumati salaasa ci ñetti lëndëm lëndëmu butit lëndëmu mbaq lëndëmu biir yàlla moom di la wëlbati di la jox ngay lekk di la jox ngay naan kenn nekku fa bi juddu jotee kenn mënu ci dara bañ la yóbbee maternité ndax docteur yi dañoo ubbi biir bi dana génn dañu ne delloo leen ko mat gi ñoragut matagut ñu daal lay dugal ci oto bi delloo la nga toogaat ba ci yàgg mu gën a metti waa kër gi moom mënuñ ci dara ndax buñ ci mënoon dara duñ la yóbbu maternité dañu la yóbbu hôpital ba docteur yi tële nga xam ne mënuñ ci tus dañoo toog di xaar heure bi kon du ñoom bu doon ñoom la bi nga yegsee rek lañ lay yóbbu génne waaye du ñoom yàlla waaw yàlla moomu sàkk la sël indi la ci kaw suuf yow amoo looy fay yàlla lu dul di ko bokkaale di ko dendaleeg mbindeef moo xam ne moom yàlla moo bind yéen ñaar ñëpp yàllaa leen bind wala nga bàyyi mbindeef mi di dendale yàlla ak bàmmeel wala nga koy dendale ak kuur wala ak gën wala ak petaaw wala ak xaaw wala ak laar wala ak benn béjjén tukulóor yi nee nañ allaadu sina nafan ummataa koy xóore joomum so tawi no tan allaadu ina nafa reenat hoore nde ummindi ana béjjén bi nga takk béjjén bi nga takk dafa ne béjjën bi mënal na la dara wala nga takk ko ci buntu kër gi wala nga takk ko ci petaalu oto bi wala nga takk ko ci baar bi wala nga takk ko ci sa ndigg béjjën bi lu mu la mënal yow béjjën bi fan la nekkoon ci bopp xar bi ana xar bi rey nañ ko ana yàpp bi lekk nañ ko ana yax yi seeñu nañ ko ana der bi ñu nga nee daaj ko weer ko ci naaj bi di xaar mu wow ñu jullee ko nga takk béjjën bi naan ku ma laal dee te béjjën bi fa mu nekkoon ka ko yoroon dee yow xam nga ne xalaatu béjjën du aaraate béjjën du sàmm nit lam bu ñuul du musal kenn ci dara pitaaw du musal kenn mais Sénégal dañoo bañ ne fokk rek yow di nga takk ñu ne déedéet yow doo takk doo naan ñu ne yow da ngay xaru dëkk bi boo dul takk xar fa fuufa xar fa fuufa ne la fuuf yooyu la ñuy maye moo tax gis nga njabarkat yëpp R plus 4-4 c'est parce que nit ñi njabar lañ gëm gëmuñu yàlla wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun suratu yusuf yàlla nee na ñi ëpp ci nit ñi gëmuñu yàlla lu dul dinañ ci bokkaale yàlla tabaraka wa taala day gis ku julli ba pare fekk mu ngi takk ay gàllaaj te mu ngi ci jàkka ji jàkkaarloog yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla yow rek laay jaamu yàlla yow rek laay sàkku ndimbal mbokki jullit yi bàkkaar bi gën a rëy ci kaw suuf ñu moye ko yàlla mooy bokkaale moo tax Luqmaan ba muy dénk doom ji loolu la ko njëkk a tere non lu tax mu nekk bàkkaar bu gën a rëy ci bàkkaar yi c'est parce que ci àq yàlla lañ ko teg ci àq yàlla danga romb ñépp ñëw ba ci yàlla di jalgati yàlla li moom mooy xaqullah alal ibad yàlla ay àqam ci ñun mooy ñun ñu jaamu ko bañ koo bokkaale kenn bañ ko dendaleeg lenn jullit day am kóolute ci yàlla mbokk yi lan moo tax ñun yàlla kese kese rek mun da nekk suñu xol ak suñu xel lu tax loolu ñun ñëpp ko war a laaj koo wax mu ne kan ko kay il faut looten mo foog ñu sang ko kan oo kay foog nawen mo ɓoxe ɓoxe ɓaleeje il faut ñu yóbbu ko ci guy yu ñuul yi il faut ñu yóbbu ko ci xàmb yi il faut ñu yóbbu ko ci il faut ñu yóbbu ko ci ana yàlla ana yàlla loola tax doomu aadama yi ci seeni jafe-jafe dañuy wër ba par mbir yëpp jeex ñu doog ne yàllaa ci des ndeysaan waa ji daa feebar ñu jël ko yóbbu ko ci dëkk ba wër ak moom ba xaalis bi jeex takk sang ko ci xamb yi reyal ko ay xar yu ñuul reyal ko ay bëy yu ñuul reyal ko muus yu ñuul reyal ko nag bu ñuul wérul ñu ñëw hôpital yi wër hôpital yëpp wérul ñu indi ko ci kër gi daan ne yàllaa ci des ndeysaan yàllaa ci des ah léegi la sunu xel di dem ci yàlla yàlla bàyyi ko mu dee mu dugal ko safara ñi ko doon yóbbu yàlla di leen xaar jullit loolu du fajom jullit du faju ci yooyu jullit soo amee jafe-jafe soo am feebaree soo amee problème luñ la sant lu ndaw rek pour ñu xam ne yow gëm nga yàlla mooy jàppal nga lal sa sijaada sa digg néeg nga julli ñaari ràkka sa dernière sujjóot nga woo yàlla démb maa ngi nettali conférence bi ma doon def Rufisque maa ngi nettali mbokk yooyu waa ji jóge woon Saam jëm Yaman yor gëleemam commerçant bu mag bi mu ñëwee ba ci digg àll bi fi mu daan jàddee di dem yamen di jóge yamen jëm saam fi mu daan jàdde ndeke am na benn agresseur bu ko fay xaar bi mu ñëwee ba jib bi mu ñëwee ba jib barab bi mu fekk waa ji taxaw ndeysaan waa ji ne ko yow foo jógee mu ne ko yaman foo jëm mu ne ko saam mu ne ko lu tax nga bëgg a jaar nii mu ne ko man nii mooy sama yoon chaque jour nii laay jaar mu ne ko yoon bi dafa gudd xanaa xamoo bii moo gën a gàtt mu woon ko beneen yoon mu ne ko man sax fii laay jaar mu ne ko comme ñun ñaar kese lañ nañ jaar ni nuy waxtaan nga bañ a wéet ma bañ a wéet ah waa ji daal di am confiance commerçant bi am confiance ci wa confiance ci waa ji ne ko nañ dem ñu dox lu ëpp li waa ji daan dox yegg dëkk ba mu ne ko yow danga ma ne woon yoon bi moo gën a gàtt mu ne ko nañ dem rek leen ñu yegg waa ji dox ba ci yàgg gis ay yaxu fas yu dee mu dox tuuti gis ay yaxu gëléem yu dee mu dox tuuti mu gis ay bopp nit ak ay tànk ak ay loxo mu ne waa ji waaw lii nag waa ji ne ko bala ma lay bàyyi sa yax mel nii mu ne ko kon loo ma nar mu ne ko rey waa ji ne ko baal ma nga bàyyi ma ma dem dama am njaboot nga jël gëléem gi mu ne ko gëléem gi moom maa ko moom jarul ñuy discuter ak la mu yor maa ko moom léegi kay sa bakkan bi la ñuy discuter yow waa ji ñaan ba sonn mu ne ko su ma la bàyyee da ngay dem dëkk ba danga may boole day ñëw fii wër si ma kon rey la rek mooy solution waa ji ne ko kon léegi may ma ma julli ñaari rakka après nga rey ma mu ne ko jullil waa ji daal di tekki gëléem gi génne benn mbuus daal di jàpp génne si jaadaam lal daal di kàbbar def benn rakk kàbbaraat def ñaareelu rakk daal di sujjóot daal di yónnee yàlla message bi daan ne ko yaawa duud yaawa duud yaawa duud yaa zil arshil majid yaa faalan lima yurid asaluka bi wajhika alladi la yuram wa bi mulkika alladi la yudam wa bi nuuri arshika alladi la yuram yaa mugiisu agisni yaa mugiisu agisni yaa mugiisu agisni bi mu waxee kàddu googu ci sujjóot bi mu sujjóot mu dégg am ku ne bu ko rey agresseur bi gestu na waa fii ku fi nekk naan bu ko rey mu jëmaat ci waa ji mu dégg keneen beneen kàddu ne bu ko rey bi mu yegsi ci waa ji yëkkati jaasi ji ne day dagg bopp bi mu gis am ponkal mu taxaw ci kanamam ne du yow lañ ne bu ko rey fi muy tëf rek waa ji daal di koy biti loxo mu dali fële moog jaasi ji daal di dee waa jooju daal di ñëw fekk waa ji fi mu sujjóot mu yëkkati ko mu ni ko gis nga sa ñaan bi bi nga ko ñaanee sa ñaan bi bi nga ko ñaanee malaaka yi nekk ci kaw asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla ku nekk di ñaan yàlla pour intervenir pour sauver la man la ko yàlla jagleel yàlla ne ma yow demal moo tax première bu ko rey bi dama tiit bi ma koy wax maa ngi malaul aala deuxième bi maa ngi ci première asamaan bi troisième bi laa nekk fii ci taxaw yàlla nee na amman yujibul mutatarra iza daa wa yuksifu suu yàlla nee na ana kan mooy wuy ku am problème koo xam ne bu amee jafe-jafe bu woowee yàlla ndax yàlla du ko wuyu ku am jafe-jafe boo woowee yàlla rek yàlla wuyu la yàlla nee na wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata da iza daan bu la jaam ñi laajee man yàlla damaa sori wala damaa jege ndax ku ma woo dinaa ko wuyu yàlla nee na wax leen damaa jege man ku ma woo ma wuyu la waaye du ñu woo yàlla yaa sàmba yaa demba tiim ci ay armeel damaa bëgg visa damaa bëgg jabar damaa bëgg tukki da ngay gis maire bu tukki dem ci ay bàmmeel tim bàmmeel yi naan leen kumbay ay dakay ndesaaka tawa wallam wallam ɓe ndese sama doom yi takkaguñ leen amaguñ jëkkër doo ñaan yàlla kooku ngay dem xanaa xamoo ne am mbindeef la yàllaa ko bind kon demal ci yàlla yàllaay maye yàlla nee na li ma yor du jeex walillahi xazainu samawat wal ard kon mbokki julit yi Bàkkaar boobu li tax mu rëy mooy dafa romb ñëpp dem jalgati àqi yàlla te yàlla moomu fa huwa allazi xalaqa mooy ki bind mbokk yàlla bi muy bind nit di ko dugal ci biiru yaayam kan la tàggu yaay ji kan la tàggu baay ji kan la tàggu bi yàlla di sos xale yooyu xale boobu ci biiru yaayam yàlla ki bind mbindeef lu mu doon ci kaw suuf yàlla ko sàkk mooy ki ko amal moo ko bind te bam koy def tàgguwul kenn laajul kenn sa xalaat ñun ñu toog fi bi ñu yàlla di def seen ay sénégalais ndax def ñoo laaj suñu xalaat bi yàlla def ñuy góor def ñuy jigéen ndax def leen laaj déedéet kon su ko defee nañu delloo borom bi tabaraka wa taala gëddëm ak dayoom ak màggaayam moom yàlla ndax mooy ki bind waaye yemul ci bind wa huwa allazi razaqa moom yàlla mooy wërsëgalaate foofu nag lañ gën a am problème ci wàllu wërsëg xoolal tey li xew ci jamono bi da ngay gis jigéen bu takk we we boobu loo koy dee pour nga rey ci ay liir pour nga am alal waaw pour nga am alal takk ay we am na ci góor ñoo xam dañuy takk galaaj galaaj bi du dugg ci dëkk bi su duggee ci dëkk bi jigéen bu ëmb ëmb bi day yàqu allahu akbar xërëm yooyu fuñ luñ koy doyee nga rey ay nit pour nga am alal am na ñoo xam dañuy def ay sacrifice dagg seeni baaraam ñi dagg seeni tànk pour lan pour am alal ñenn ñi def sacrifice joxe seeni doom ñi joxe seeni jabar ñenn ñi sax joxe seeni yaay wala seeni baay pour lan pour am alal ñu fàtte ne wërsëg yàllaa koy joxe waaw ar rizq bi yadillah yàlla ne na wërsëg maa ko yore ku ma neex laa koy jox nguur maa ko yore ku ma neex maa lay fal xoolal tey diggante ñaar yi diggante nguur ak wërsëg nit ñi mënuñu cee am sago foog ñu bokkaale dama nga indi ma bopp muus mu ñuul moo tax gis nga dëkk bi gisatu leen fi muus mu ñuul muus yëpp jeex nañ yëpp gaay rey nañ ko ndax ay bokkaale ndax ay xërëm soo xëyee suba foog nga jënd picc sànni lépp te kenn ku ci nekk ci ñun xam nga ne lii ngay def diine dala ko tere su fekkee wërsëg nga bëgg yàlla lim la sant mooy ñaan ko ko te sàkku ji ko demal nga uti ko ndax tëdd di nelaw ci kaw lal bi xam nga ne asamaan si du taw xaalis leer na ci yow moom yàlla moomu wa huwa allazi yuhyi mooy dundal wa huwa allazi yumiit moom yàlla mooy rey ah tey moom da ngay dégg ñu ne yàlla reyatul yàlla dundalatul nit ñey dundal ñooy rey mbir yi ci loxo yàlla la nekk wa maa kulli haadihi niam wa haadihi lminan wal mushrik yajhad bi zalika wa yun wa yunkiru mboolem lii yàlla wax maay bind man yàlla maa sàkk man yàlla maay wërsëgale man yàlla maay dundal man yàlla maay rey mboolem lii waa ji xam ko ba pare xam ne yàllaa koy def mu ne fi ñukk yàlla dem ci xàmb yi wala mu dem ci gënn yi wala mu dem ci tuur yi wala mu dem ci bàmmeel yi wala mu dem di bokkaale ci moo tax xoolal suñu dëkk bi koñ boo tourné am na njabarkat bu fa dëkk télévision boo gis am na njabarkat bu bu fa am émission rajo boo gis am na gisaanekat wala njabarkat bu fa am émission dëkk bi yëpp nag foo dem waaw waa ji toog fii jàkkaarloo sama kanam amoon na njabarkat bu dëkk seen koñ bu tudd kaafiru diin kaafiru diin mooy lan ci arab mooy ku weddi diine kii toog nii tablo la def ci buñu kër gi tablo bind ci kaafiru diin waaw naka la jullit di waxee man gëm naa yàlla ba pare te gëm bi nga gëm yàlla da nga ciy bokkaale xanaa xamuleen ne yàlla rek mooy musalaate amul kuy musalaate kudul yàlla soo ko waxee ñu ne kii day font rek wallahi amul luy musalaate kudul yàlla amul ku ñu war a yaakaar kuy dindi jàngoro kuy wéral kudul yàlla soo waxee ñu ne waaw kon nangam nag su la bëggee dal nag nangam boo bu la dalee nag nangam boobu bu la dalee am na lu lislaam wax lañ koy fajee lu dul ni nga ko bëgg a defee. te xam nga lu tax mbir mi garaaw mooy ca xale bi bu mu nekkee ci biiru yaayam ci lay commencé ci lañ commencé di ko tàmmuloo ay xërëm fii jigéen ju ëmb ñu ci ëpp dañuy takk ay ay ay ay laar. dañuy takk benn caas ñu ne mooy wattal mooy garder biir bi mooy aar biir bi xam nga ne loolu ay sóob la rek doomu aadama boobu fi ko yàlla dugal xam ngeen ne caas ak téere mënu koo aar ki koy aar mooy yàlla boo demee ba maternité booy am doom téere yëpp la ñuy tekki teg fële kon du yàlla du téere yi yàlla la foofu doomu aadama jaar juddu ne put yàlla nee na maa ko ubbi summa sabila yassarahu maa ubbi yoon bi nga dem waaye xam nga ne du téere bi xoolal xale bi bi mu ne cëpp cëpp ci maternité bi lañ ko commencé takkal ay gàllaaj ay kànnaar ay weñ petaaw ah boo waxee ñu ne diw de moo ko jox baay baay Moodu Samba Yero moo ko joxe nee na lii moo koy aar yonent bi lan la la wax ci sa doom bu juddoo bu amee doom pour lu koy aar noppalal sa bopp waxal aizuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma jeex na waaye déedéet du ñu nangu dañuy bañ dañuy lànk jàng li islam wax dem di bokkaale ji foog rek ñu takk ay gàllaaj foog ñu takk ay xërëm foog ñu takk ay xaaw buntu kër yi dafa fees gars yi sax bañ nañ bu ñu xëyee suba foog ñu tooyal buntu kër yi waaw lépp bokkaalekat bi dafa bañ bal wa yasrifu ibadatahu wa taazima li gayrillah day jël li yàlla moom jël ko jox ko keneen tey boo laajee Sénégal ñuy sotti ndox seen buntu kër yi lu tax ngeen di sotti ndox lu ñu leen di tontu dama ne dama ne benn laaj laay laaj ma ne ñuy sotti ndox buntu kër yi ak oto yi ak ak ak koo ci laaj lu tax boo xëyee suba sotti ndox ci bunt kër gi lu muy tontu man da jàmm laa bëgg ndax ndox dafa sedd moo tax ma sotti ndox ci buntu kër gi ndax kër gi jàmm xam fi lu sedd du loolu la du loolu la la wax dem leen gunaas ngeen laaj leen ndax ndox dina indi jàmm dem leen baxdaat ngeen laaj leen ndax ndox am na jàmm foofu boo footee ba pare sa nga bëgg jur ñu ne bul tuur de jubalal ñooñu bëgguñu ndox koo fa ne kaay ma may la ndox mu ne doy na su maree naan sax danaan la doy na doy na allahu akbar laaj leen firawna ndax ndox day maye jàmm kon xam nga luñ la wax yow moom du tuur ndox ci buntu kër gi xam nga lan lañ la wax pour nga am jàmm ci kër gi soo xëyee boo ñëwee ba ci buntu kër gi waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwata soo ko waxee malaaka yi ne ku fiite wa hudayt aar nañ la protéger nañ la ba ba ngay del siwaat loolu ak ndox mi ban njëriñ la am da ngay gis maire buy génn kër gi di dem au lieu mu ne bismillah tawakkaltu ala allah day ñëw ne góo idi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi somi artimi winde sappo o an kon noon mbatta paabi nene noon lay def dégg nga allahu akbar dafa dëggu wax na dëgg li mooy dëggu léegi loolu ngay def noonu lu tax nga koy def benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent su ma ñëwaatee bind fukk bi lu tax nga def noonu parce que da ngaa yaakaar ne yàlla dina la fi bàyyi après nga ñëwaat nga mottali fukk bi waaw moom yàlla mi la wax ne man kat lii laa la sant defal bii bii moo lay aar waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah bi nga indil sa bopp ak bi la yonent bi indil bu gën a wóor assurance mbokk yi dama leen di laaj yéen ñi toog fii yonent bi mu indi ak ñun yi ñu indi bu gën a wóor ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam te xoola yonent bi mu indi yàlla moo ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fan ngal la waay lu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen yonent bi indil ñu ba pare ñu teg ko fee ko yonen ko nelaɗo addide kono ɗum ɗo ne ko hen jeeya ko ɗo tawa ko ko ɗo tawa yonante lii la indi dëgg la waaye nag ah lii tamit fi lañ ko fekk de ku ko weddi ku ko weddi xam pa diw weddi woon na nangam mu jaar nii mu jommi maire diw sóob kese sóob la ay sóob la billahi sóob la boo gëmee yàlla lii yëpp pënd ak poussière la mbokk yi ñun dañuy fàtte alquran ibrahim fan lañ ko dugaloon ci safara dëkk bi yëpp ànd taal ay mat ñu jël ibrahima yeew ko tëmbal ko ci biir safara si yàlla mu noon ne wax asamaan tawal wala wala mu ne géej dawal nga fay safara bi wala mu ne dex gi dawal yàlla dafa bàyyi di leen seetaan safara si la jox ndigal ne ko waqul naa ya naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim safara ji tàkk ba jeex ñu gis ibrahima toog ci biir di naan ataaya njaganaayoo benn njaganaay tegale tànk yi jibril toog ci wetam di ko ataayal ba ma tiy jeex tàkk ban téere la takk ban gàllaaj la takk ana béjjén bi ana weñ gi mu takk ah ana petaaw bu mu takk xoolal fii dañ naan doomu jinne daa réer de takk leen sagar bu xonq nga dem ci jàkka ji gis paay takk sagar yi xonq jinne bi lu muy dee paay nga romb nga gis maire yi takk ay sagar yi xonq lan la ay doom oustaz oustaz ma ne doomu jinne daa réer yow ngay ponkal ngaa tolloog doomu jinne nga gis xale yëpp takk nag ku nekk takk am na benn année boo xam ne école benn paan laa teg yor ciseau fajar huit heures ma ñëw taxaw ci bunt bi ku ñëw ma ne ko tippit dugal ci paan bi ba paan bi fees yéen yaakaar ngeen ne doomu jinne su réere ay sagar yi xonq mooñ ciy musal xoolal kañ lañ doon wax mère Maté mère Maté ñu ne tëll ñu ne am na koy yóbbu waay yàlla waay yàlla kooku nu rek sa waay yàlla dem mais ay mbir yoo xam ne dëkk bi dalay won ne dëkk bi nit ñi setuñu ndax lu tax parce que nit ñi amuñu tawxiid nanguwuñu kennal yàlla gis nga Ibrahim ba dëkk bi yëpp àndee di xeex ak moom taal safara ma ne yàlla tawul daal dafa bëgg a bàyyi war ne waa dëkk bi du yéen man la yàlla yónniwul taw bi yónniwul géej gi yónniwul dex gi daa bàyyi laa wax safara si laa wax takk Ibrahima nekk ci biir matt yi ba matt yi jeex takk ñu gis ko mu toog tegale ay tànkam njaganaayu am njaganaayam jël leen Ibra jël leen Moussa Moussa keroog bi ko Firawna di topp muy xar géej gi di génn lu mu takk kan la woo Ibrahima bañ koy dugal ci safara si lu mu wax hasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla doy na ma Moussa keroog ba muy dugg ci géej gi lu mu wax inna ma'i rabbi yàllaa ngi ànd ak man xanaa jànguñu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la yéen yéen da nga ànd ak benn ponkal ñu lay garder ñetti ponkal nga am confiance ñetti ponkal yooyu kan moo leen may doole yàlla kon kay àndal ak yàlla waaye léegi la gars yi dox yàlla gisuñu ma ko u wóorul gisuma ko gisuma ko benn xale bu jigéen li may wax nii mu ngi xewee Londres benn xale bu jigéen dafa dem waxtaani ji ci benn xaritam étudiante mu dem waxtaani ji ak moom yëgul fi mu toog ci kër gi ndekki guddi na mais lumière yi mu jekki-jekki rek xool montre gis une heure mu ne maa ngi ñibbi ñu ne ko déedéet jigéen heure bi guddi na mu ne leen tàggoowu ma woon fanaan te fu muy ñibbi foog mu jël métro te dëkk ba li fa xew mooy métro bi dernière minute ku ko jël chaque jour seetlu nañ ne ñiy jël métro bi ci heure bu mujj boobu dina am kuñ ci rey te moom kenn nag tey moo ci nar a dugg nekk jigéen waa kër ga wax ba sonn mu ne leen damay ñibbi parce que jigéen du fanaan àll surtout nag tàggoowuma mu génn ci kër gi def ay askaaram jàng ayatul kursi yi amana rasul qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ah def askar yi ko yonent bi wax mu ne mu dagg bi ñëw toog nee na fu mu toog rek mu gis benn ponkal ne jaraax ci métro bi rek toog jàkkaarloog moom nee na fi mu toog muy def ay askar di def ay askar di def ay askar waa ji génn vago boobu dugg beneen vago nee na muy def askar ba métro bi egg ci gaar bi mu wàcc muy def askar ba dugg seen kër nee na huit heures mu taal seen télé téléem mu dégg ñu ne dernier métro bi démb dañ cee rey kenn benn xale bu jigéen nee na affaire bi jaaxal ko nee na ci saase la fay télé bi génn jël ay dàllam jubal police ba mu yegg si ne damaa dégg métro démb bi dañ cee rey nit ñu ne waaw mu ne dégg naa ki ko rey jàpp nañ ko ñu ne waaw mu ne dama ko bëgg a xool ñu ne lan la mu ne dama ko bëgg a gis rek dama ko bëgg a gis ab policier jàpp ci loxoom ba yegg si ci giri bi ne ko waa ji la ndeke mooy ponkal moomu nga xam ne moo duggoon jàkkaarloog moom mu ne waa ji xàmme nga ma waa ji ne ko waa xàmme naa la kay mu ne ko fan mu ne ko démb métro bi bi ma ci duggee gis naa la nga toog mu ne ko lu tax reyoo ma nga dem rey keneen ki mu ne ko yow bi ma la bëggee rey ay ponkal laa gis ñu taxaw sa kanam ñemewuma laa jege ah gis nga loolu jërëjëf allahu akbar kii nee na gis na loolu mu ngi ñu bind mu ngi ci internet bi ku dem liir ko dañ ko bind arabe ak français ak anglais mu ne ko lu tax reyoo ma mu ne ko wallaay gis nga bi ma duggee yow mi laa bëggoon rey waaye bi ma la bëggee jege damaa gis ay ponkal taxaw sa wet ndeke du ay ponkal ay malaayika la yàlla mooy aare suñu yaakaaree ne leneen moo ni aar nii rek la ñuy mel nii waaw tey xoolal làmb bi xoolal bokkaale geeg ba ci làmb yi bañ nañ ko ba dañuy yóbbaale sax alxuraan bañ nañ ko ba dañuy yóbbaale alxuraan ci biir di bokkaale mbokk yi bàkkaar boobu yàlla du ko baale nañu yëg loolu bu baax képp ku ko deewaale sunu borom subhanahu wa taala nee na pare nga yàlla nee na innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na képp ku dee bi ngay ñëw ci man yaa ngi def sa xol bi keneen yaa ngi bokk keneen yaa ngi yenu keneen yaa ngi uuf keneen ba dajeeg man yàlla nee na sa dund yàqu na parce que safara nga jëm yàlla yonent bi la joxoñ baaraam ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin ndax ci àddina bi am na ko gën a màgg Seydina Muhammad laaj bu ma leen di laaj la ma ne ndax am na ku gën a màgg Muhammad dafa mel ne yéen loolu ngeen gëm de ndax kenn tontuwul ci kaw ma ne ndax am na ku gën a màgg Muhammad non ba- ba ba léegi daal wax ci jógul ndeysaan parce que Sénégal la Sénégal la waaye boo waxoon léegi leen nga di gaari wala kay ma ne ndax am na ku gën a màgg Muhammad moom la yàlla joxoñ baaraam ne ko soo ma bokkaalee di nga perte la in ashrakta soo reppee ba boole maag keneen man man yàlla sa jëf yi nga defoon yëpp laay yàq waaye ëllëg yowmal qiyaam naa la boole ci ñu perte su fekkee Muhammad lañ wax loolu mbokk yi kon ñun nag kon nañu delloo suñu xel ñu laabal suñu digganteeg suñu boroom gis nga nit ki sa digganteeg yàlla bul fi doxal kenn bul fi def lenn même bu fekkee sax sa ñaari way jur la góor ak jigéen yàlla nee na sama digganteeg yow bul fi doxale kenn alxuraan la lan la ñu yàlla wax ci alxuraan suñu digganteeg suñu way jur yàlla nee na wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maaruf yàlla nee na sa ndey ak sa baay ñoo la jur de waaye bis bu ñu taxawee bëgg a sàkku ci yow pour nga dendale ma ak kenn wala nga bokkaale ma su boobaa bul ko def bu leen topp waaye nag àndal ak ñoom ci àdduna àndal ak ñoom ci ànd bu rafet àndal ak ñoom ci njekk moo tax sunu borom subhanahu wa taala mu wax ne maadaama ne bokkaale moo gën a bon képp ku ma bokkaale yow sa fay mooy ma dugal la safara nga sax fa dootoo génneti loolu mooy sa fay kon mbokk jullit yi wa kullu zanbin maata al abd min gayri an yatuuba minhu bépp bàkkaar boo xam ne doomu aadama deewaale na ko te tuubut yàlla mën na ko koo baal ba mu des bokkaale bépp bàkkaar laax boo def mën nga rey nit waa ji rey na ñaata nit téeméer bu manqué benn la waa ji rey téeméer yi nit yu manqué benn la rey mu dem ci benn borom xam-xam mu ne ko damaa rey téeméer bu manqué benn ma bëgg a tuub ndax yàlla dina ma baal mu ne ko déedéet mu rey ko mu nekk ñaata mu nekk téeméer kon waa ji rey na téeméeri nit mu dem ci benn faqih mu ne ko damaa rey téeméeri yu nekk yu manqué benn ma dem ci benn borom xam-xam ma ne ko ndax su ma tubee yàlla dina ma baal mu ne ma déedéet mu ne ma rey ko muy ñaata waa ji ne ko téeméer mu ne ko ma ñëw ci yow ndax yàlla dina ma baal mu ne ko waaw ñu bari yenn saa yi boo waxee xadis bi dañ yaakaar ne waa ji dafa ragal déedéet kooku dafa jàng faqih la ku njëkki ki aalim la duñu benn nit dina jàng te déggul li mu jàng faqih nag mooy ku dégg li nga jàng mu ne ko soo tuubee yàlla dina la baal waaye dafa am sart lan mooy sart bi mooy nga génn dëkk bi nga dëkk nga jël say bagage nga toxu nga dem ba dëkku sangam nga dëkk foofu waa ji daal di ñëw ci këram jël ay bagage am yenu ana waa départ utali dëkk ba ko borom xam-xam bi wax ba mu demee bay waaj a dugg ca dëkk ba mu dee ay malaaka jóge safara ay malaaka jóge àjjana ñii jàpp ci tànk yi ñii jàpp ci loxo bi ñu koy xëccoo ñii ne safara la jëm ñii ne àjjana la jëm ñu koy xëccoo bu ñuy xëccee ne àjjana ñii xëcc ne safara yàlla yónni beneen malaaka na ñëw atte leen nan lan leen di attee ñu ne nañu xool dëkk bi mu jëm bu fekkee foofu la gën a jege nañ ko jox malaaka yi yërmande yi ñu dugal ko àjjana su fekkee dëkk ba mu jóge la gën a jege nañ ko jox malaaka yi bon yi jóge woon safara ñu dugal ko safara ñu daal di nat ñu gis ne dëkk ba mu jëm foofu la gënoon a jege ñu daal di koy bàyyee ak malaaka yërmande yi ñu daal di koy dugal aljanna falal kook lim def lépp waaye dafa tuub moo tax yàlla baal ko kon bàkkaar lu mu rëy rëy rëy doomu aadama bu ko jégguloo yàlla fekk deewagul yàlla dina ko baal waaye boo de boo ko deewaalee yàlla du la baal moo tax ñu bëgg jullit mu góorgóorlu bu baax kemtalaayal kattanam mu moytandiku bokkaale mu boytandiku mu moytandiku weddi yàlla sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima sunu borom nee na képp koo xam ne da ngaa bokkaale yàlla na nga yëg ne yow yàlla du la baal waaye moom yàlla mën naa baale bépp bakkaar bu dul bokkaale képp ku bokkaale yàlla yow day da ngaa sosal yàlla da nga koo fenal ndax da nga ne yàlla am na lu mu mënul diw mii moo ko mën wala garab gii moo ko mën wala bàmmeel bii moo ko mën wala kuur gii moo ko mën wala gënn gii moo ko mën wala lam bii moo ko mën wala téere bii moo ko mën loolu nga wax da nga ne yàlla mënul loolu loolu lii moo mën loolu moo tax nga nga ne nga wàññi àq yàlla mbokk yi wa sirk al maqsuud bi kalaamina hada al yawm wa shirku al akbar al muxriju min al milla wa huwa ala anwa mbokki jullit yi tey sunu waxtaan sunu fàttali bokkaale bi ñu bëgg a wax tey mooy bokkaale bu mag bi bokkaale googu nga xam ne ku ko def génn nga ci islaam nekkatoo jullit gis nga nekk ku bokkaale yàlla rek nekkatoo jullit même boo jullee nekkatoo jullit saa yoo takkee béjjën nekkatoo jullit sa islaam yàqu na kenn ci ñun mbokk yi bu jàppee ba pare war a julli am lu mu def lu génn ci yaramam moo xam dafa dem wanag wala dafa dem àll ba ana njàpp ma dama laajte ana njàpp ma njàpp ma yàqu na soo wooree nga lekk ana koor ga yàqu na soo ajee nga séeg sa soxna ana aj ba yàqu na gis nga ni mu amee luy yàq njàpp ni mu amee luy yàq koor ni mu amee luy yàq aj noonu la amee luy yàq islaam loo xam ne boo ko defee génn nga ci lislaam nekkatoo jullit te tey daanaka dëkk bi nit ñi ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan lu tax parce que xamuñ dafa am lu ñuy tuddee nawaqidul islaam luy yàq islaamu nit loolu dafa jaadu tey su fekkoon ne dëgg-dëgg xam nañu kenn ku nekk nga bind ko daf ko ci sa bopp lal sooy tëdd mujjee koo gis soo yeewoo njëkk koo gis ndax lépp lu yàq islaamu nit nit war na koo mooy tandiku ndax sa islaam bu yàqoo nekk too jullit te soo nekkul jullit boo dee yàlla jëflanteeg yow waaye li ruslu tey ci suñu dëkk bi mooy nit ñi la ci ëpp ci loolu lañ nekk kon li ma doon wax léegi bokkaale gi ñu bëgg a wax mooy bokkaale bu mag mooy lan bii génne nit ci islaam te mu nekk ay façon bi ci njëkk mooy shirkun fi rububiya ndeysaan wa huwa itiqaad te loolu bokkaale googu nga xam ne day génne nit ci yoonu yàlla te ba ca njëkk nekk shirku rububiya bokkaale ci moomeelu yàlla nga fekk yàlla lim moom nga ñëw bokkaale ko ca keneen ndax yàlla mooy rabb jàngeen alhamdulillah rabbil alamin jàngeen qul a'udhu bi rabbil falaq jàngeen qul a'udhu bi rabbin ar rabb mooy borom mooy ki yar mooy ki moom moom yàlla moomu mutasarrif fil kawn bil xalq wa tadbir yàlla mooy soppeeku mooy soppi addina bi ci bind bi mu bind ak doxal bi muy doxal mbiru nit ñi moom yàlla moom moo koy def bu tàngee moo ko tàngal bu seddee moo ko seddal bu leeree moo ko leeral su taw ñëwee moo indi taw su maral amee moo ko def ku wér moo la wéral ku feebar moo la feebar ku dund moo la may dund ku dee moo la rey ku am wërsëg moom yàlla moo la ko may loolu mooy arab tawhidu rububiya mooy yàlla moo moom loolu nag dañ ko war a jox yàlla kese ñu bañ ko bokkaale yàlla ak kenn diw day maye wërsëg soo bëggee wërsëg demal ci moom wërsëg yàlla koy maye boo bëggee wërsëg boo takkee gàllaaj gi maa ngi fàttaliku bi ma gënee nekk xale su ma demoon julli ji juma am na benn waay bu fa daan ñëw di jaay ay gal- ay gàllaaj naan gis nga gàllaaj gi su ma la ko jaayee boo koy ëw da nga kii boole dërëm giñ naa ci màggaayu yàlla doo tàqalikoog dërëm nit ñi jënd nit ñi jënd ba mu jeex tak mais léegi nii laay doog a xam ne waa jooju ci ci ci xelu nit ñi la doon dox ndax téere boobu mu lay jaay mu ne da nga koy ëw soo koy ëw dërëm nga ciy def ba pare mu waat ne doo tàqalikoog dërëm mais wax na dëgg boo takkee téere bi foo dem yaa ngi ak dërëm léegi nag moom day waat ne la doo takkali koog dërëm nga yaakaar ne foo toll di nga am xaalis gis nga gis nga muus googu ñu doon muus muus ci kaw nit ñi foo toll di yor di nga yor dërëm giñ naa ci yàlla foo toll yoroo dërëm yàlla na ma yàlla nangam di waat waat yoo xam ne da ngay xool yi foog nga jënd te xoolal këyit gi cent franc rek la ko doon jaayee mais xoolal lu toll ne juma ña fa teew ñëpp jënd 100 francs loolu ñaata la waaye ndekee ndeysaan nit ñi lank rek bokkaale wërsëg yàllaa koy maye olof yi nee nañ ku robinet yi tëj nga naan potit bu robinet yi tëjee nga rus su fekkee robinet yi bu tëjee rek nga dem fekk potit mi nga naan ko ñàkk wala tax nit goreedi xiif warul tax nit goree ji tey mboolem li ñu gàllankoor ci wàllu pas-pas boobu mooy ñàkk a gëm yàlla tabaraka wa taala ñàkk a delloo yàlla njukkal ci ay xéewalam yi mu yor ak ay wërsëgalam di ko joxaate moom yàlla subhanahu wa taala wa haza shirk idaahu firawna li qawlihi taala fa qaala ana rabbukumul a'la gis nga firawna ba mu réewee ba bew dafa dem fekk li yàlla moom mu ne moom moo ko moom mu dajale ñëpp ci benn place ci benn pak mu ne leen ana rabbukumul aala maa yàlla ju mag ji moo tax ba ko yàlla jàppee fa axazahu llah nakaala al axira wal ula yàlla mu ne inna fi zalika la ibra waaye pour kan mu ne li may yaxsha yàlla nee na yéen yéen ñi may bokkaale wala di ma dendale wala bëgg a jël nit teg ko sama place xanaa gisu leen firawna firawna ba mu nee moom mooy yàlla yàlla nee na dama ko jàpp tëmbal ko ci ndox xoj ko ba mu sedd guy te loolu adduna kese la maa ngi koy xaar àllaaxira yàlla nee na loolu kéemtaan la yéen ñëpp da ngeen cee ji war a jële ak waar inna fi zalika la ibra yéen ñëpp da ngeen war a xool li ma def firawna ngeen moytandiku loolu waaye kan mooy moytandiku loolu mu ne li man yaxsha ku ragal yàlla rek moo mun a moytandiku loolu ku ragal yàlla mooy gis ku dara dal ku yàlla natt dara dal ko ci ay bàkkaar yu mu def ku ragal yàlla ki moytandiku loolu waaye ku gëmul yàlla koo xam ne ay nen la gëm waaw ay nen fii nii fii nii mat fii ñu toog def conférence lu ëpp boo yeewoo fajar di di xëy di nga fi fekk ay nen yi ñu fi teg bii ay nen wala nga fekk fi ay sondel mbaa nga fekk fi guro gu weex wala yenn saa nga fekk fi ay puso loolu tey boo doon laajte ñan ñoo koy def jullit yi ñoo koy def ana yàlla mbokk yi ayna allah ayna allah ana yàlla kon sunu boroom subhanahu wa taala moom ak moomeelam moom kenn la bu ci kenn rax lenn ñaareel bi mooy shirkun fil uluhiya yàlla nekk gi mu nekk yàlla te mooy soppeeku ci jaam yi façon jaami yàlla yi loolu nañu xam ne yàllaa ko moom xërëm yi moomuñu ko rendi yàllaa ko moom kenn warul rendi kenn ku dul yàlla looloo tax nga feebar ñu ne la demal nga rendi loolu boo ko defee rek génn nga ci lislaam ngeen déglu bu baax képp ku nekk ci ñun ku am mbokk mu feebar jëkkër jabar doom mbokk mu feebar wala mu am nattu nga dem ci kenn mu ne la kii foog ñu reyal ko wallahi alazim bis boo ko reyalee safara nga jëm ndax ren bi yàllaa ko moom yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te li mu rendi yàlla taxul gis nga ngénte da ngay rendi waaye doo am bakkaar lu tax tey bu ñu amee doom ñu dem ut xar ñu rendi ndax dañuy am bakkaar wala dañuy am tiyaaba dañuy am tiyaaba lu tax parce que yàlla moo ñu ko sant moo ne bu ngeen amee doom rendi leen ngay takk soxna nga dem jënd nag wala gàtt nga rendi ko da ngay am tiyaaba wala da ngay am bakkaar da ngay am tiyaaba parce que dañ leen a awlim walaw bissa yàlla la ko sant nga am gan nga rendi da ngay am tiyaaba pourquoi parce que dañ leen a ter soo amee gan teral ko waaye boo amee ku feebar nga rendi dugg nga ci musiba soo rendilee xërëm yi da ngay gis tey nit ñi am problème nga dem ci xamb yi ñu ne la demal nga indi ginaar nga rendi ko demal nga indi nangam nga rendi ko loolu saa yoo ko defee yëgal ne dugg nga ci bàkkaar bu mag bi kon loolu ñuy wax rendi ci ay xërëm wala ay bàmmeel di wax ne lii kat suñ ko defee dañuy jege yàlla loolu mbokk yi ci bokkaar bakkaar yu mag yi la bokk nañ ko mooy tëndiku loolu ci bokkaale la dugg ci mooy shirkun fil uluhiya sunu borom subhanahu wa taala doxalewul digganteem ak jaam ñi kenn soxla lu mu rëy rëy rëy feebar lu mu rëy rëy rëy demal ci yàlla direct bul dendale lenn sa digganteeg sunu borom subhanahu wa taala ak mbir yi lu mu rëy rëy nag bul doxale lenn sa digganteeg yàlla sunu digganteeg sunu borom kenn xeju fi yàlla dafa bëgg ñu génne ñëpp rek direct rek yaag yàlla direct tey nag loolu la nit ñi bañ loolu la nit ñi dul jéem nit ñi dañoo yaakaar ne ñoom dañoo salte ñoom dañoo takk ñoom dañoo tilim am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñooñu ñooñu mën a yóbbu loolu moo indi suñu problème ak yàlla su ko defee bu ñu amee jafe-jafe ñu dem ñu ne ñu xar mi foog ngeen rey ko foog ngeen indi xar mu ñuul wala xaru benn melo wala foog ngeen indi ginaar benn waaye dafa bëgg a tukki mu dem gis benn bu xaaba mu ne ko foog nga indil ma muus mu ñuul waa ji ñëw fi Dakar rëbb rëbb ak xale koñ bi ba am muus dugal ko ci saak jël sept place jëm dëkk ba muus mi ci biir oto bi minute bu nekk rek muus mi kërëñ kërëñ yi jigéen bi mu dendaloon jékki-jékki rek daal di yuuxu ñu ne ko lan la mu ne kii daa dugal fii nit kii liir la sàcc dugal ko fii chauffeur bi droite nit ñi wàcc ñu ne ko sawaayo nit nga yor mu ne déedéet ñu ne ko mais lii yëngatu fii lan la mu ne muus la ñu ne ko foo jëmee muus mi mu ne sama muus la quoi maa ko yar dafa maa miin te damay toxu bëgguma ko faa bàyyi sama muus la maa ko moom damay toxu bëgguma ko fee bàyyi ñooñu daal di vérifier xool ñu gis muus la ñooñu daal koy bàyyi parce que dañu yaakaar ne wax na dëgg ndeke benn gàllaaj lay defari ji bu tudd nit mi nit ki gàllaaj googu bopp muus mu ñuul lan la koy defarale suñ ko defaree ba pare pour nga xam ne wér gàllaaj gi nangu na wala nanguut dañuy teg seetu sa kanam nga xool sa bopp ci seetu bi doo ko gis soo duggee oto chauffeur bi du la laaj paas soo duggee train doo paas soo duggee bato doo paas boo duggee avion doo paas yooyu lañ koy doyee waaye waa ji ñu defal ko ba pare waa ji ne ko xoolal mu xool gisul boppam waa ji ne ko demal léegi Kaolack ci ga- garage bi nga dugg oto jëm Dakar kenn du la laaj paas mu ñëw dugg toog kenn laaj ko paas ba mu yegg Dakar mu yaakaar ne gaa laaj gi nangu na mu tërërëri wutati aéroport waaye bi mu nekk see ba gendarme yi jàpp ko tànd ko parkaat keroog la xam ne yàlla dëgg la mbokk yi yàlla du moroom yàlla boroom la sunu boroom moomu subhanahu wa taala ci ay melokaanam yi mu yeyoo nga xam ne moom kenn moo ko moom nga xam ne tey kuy yaakaar moom nga war a yaakaar kuy ragal moom nga war a ragal kuy bëgg moom nga war a bëgg mboolem jaamu yàlla yi kuy julli moom ngay jullil kuy saraxe moom moo war a tax nga génne ko ak yeneen yu dul yii ci ay jaamu yi mu wax ne inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa maatiya lillahi rabbil alamina la sharika la lii moom yàlla moom moo ko moom ñetteel bi ci façon bokkaale yi mooy sirkun fil asma'i wa sifaat mooy bokkaale yàlla ci ay turam ak ay melokaanam gis nga turu yàlla yi njabarkat yëpp fii la ñuy bokkaale da ngay gis ku ne man turu yàlla laay liggéeyee man turu yàlla laay liggéeyee du benn turu yàlla ay turu jinne la turu yàlla yëpp yàlla wax na ko ci alquran yenn yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral na ko ci sunnaam beneen tur bu ñu fekkul ci alquran ak sunna du turu yàlla waaye tey dañoo lànk gis nga même buntu kër yi da ngay romb benn buntu kër ñu bind ci baduuhu wala ñu bind ci laduuhu nga romb oto nga gis ñu bind ci fatilan jadilan xam ngeen fatil mooy lan xam ngeen ne loolu du tur yàlla xam ngeen lan mooy fatil am na benn tàndarma bu wow kon tàndarma bu boo ko xalee ci xoox bi da nga fay fekk benn mbuus ci mbuus moomu boo ko dindee di nga fekk benn buum gu tàlleeku ci xooxu tàndarma bi loolu mooy fatil loolu du tur yàlla loolu na nga jël ko bind ko sa buntu kër daan ne bi tur yàlla la fii sàcc du fi dugg fatil xam nga loo fa bind mooy buum gu nekk ci xooxu tàndarma nga yaakaar ne yàlla nga fi bind moo tax nit ñi ndeysaan mais nag li yëpp li ko waral mooy ñàkk a jàng koo wax mu ne man kay bi ma nekkee xale daara bi ñu ma yóot woon Fatiha Falaq ak Naas tan mbaaw mi Fatiha ak Falaq ak Naas rek laa mën waaw foofu nga nangoo yem rek foofu nga nangu yem waaye boobu ba léegi bi nga nekkee ci àdduna bi loo fi mokkal ah ñaata natt nga fi jiite di ko lijjanti ñaata ñaata projet nga fi tëral ci koñ bi lijjanti ko ba mu sotti ñaata ñaata métier nga fi jàng mokkal ko nga bàyyi diine yàlla bi bu ñu waxee rek nga ni ah yàlla moom de moom dinañu comprendre yàlla de dinañu yërëm yàlla de waxul kenn dara yàlla de ku bëri yërmande la mbokk yi yooyu ay wax kese la gis nga yàlla li mu wax démb ak barki démb loolu la wax gis nga soo góorgóorlul ba nga nekk ci santaane yàlla yàlla yàkkamtiwul bés a ngi ñëw dinañ la wàcce salal bi dinañ la génne sa néeg bi ndeysaan démb barki démb damay xëy am ku ma àndal may ñibbisi fii ñu romb benn étage mu ne ma gis nga kër gi ma ne ah mu ne kër gi buntu kër gi musta ubbeeku lu dul démb mu ne borom kër gi daa dee ñu ubbi buntu kër gi buntu ñetti buntu kër la yëpp lañ ubbi mu ne waaye kër gi kenn mus koo gis mu ubbeeku waaye barki démb de ubbi nañ kër gi yëpp bañ a ubbi lépp la ñuy ubbi dootul tëju parce que yàlla moo ko ubbi. boo faatoo dañuy ubbi buntu kër gi ubbi buntu néeg bi ubbi armoire bi ubbi taatu valise bi lépp la ñuy ubbi dootuñu bàyyi dara sa lépp dung ci biti lay nekk ku dee rek weeru. lépp la ñuy contrôlé lu mu fi bàyyi foog ñu ubbi armoire bi foog ñu ubbi valise bi foog ñu ubbi kër gi foog ñu ubbi néeg bi moo tax dara du tëju ndeysaan bi ngay tabax kër gi ñaari buntu nga def bu mag ak bu ndaw boo dee ci bu ngand bi lañ lay jaarale dugal ci morgue bi yonent bi nee na yat ba ul mayit salaasa ku dee ñett ñoo lay gunge ñett ñaar ñi ngay àndal kenn ki moom ñaar ñi dañuy lànk ñibbisi kenn ngay àndal mu continuer ak yow ku dee rek ñett ñoo lay gunge waaye ñaar ñi dañuy ñibbi kenn ki continuer ak yow xam nga kan mooy njëkk a dëpp sa alal soo dee sa jabar wala sa jëkkër lam yi montre yi bëñu or yi yére yi kër gi compte banque yi ci bunt kër gi lay yem dara du dem dañ lay fekk ci morgue bi yére yi nga mujjee dee sax dañ koy simmi lam yi dañ koy tekki jaaro yi dañ koy tekki yenn saa yi sax nga dégg ku ne mbaa dindi ngeen ba ñu or bi ñu ne yii dañ ko fàtte woon ñu ne bisimilah dindi leen ko ñu ngaangal ko ne ko rocci teg du dem moo moo ko tegal fii foo ko jëmee bon ndeysaan ñu ñu daal dem indi ciseau nag indi ciseau ñu ñëw ci gàllaaj yi nag yi nga takkoon ñu fekk fii 10 fekk fii 10 muy ñaata ñu fekk fii 30 ñu fekk ci tànk ndeyjoor bi 10 fekk ci tànk càmmoñ bi 10 yëpp ñu ne ko tippi teg tere na laa dee est-ce que tere na laa dee ndeysaan lu xew dañ lay sang buñ sangee ba pare sang buñ sàngee ba pare yeew ñëw teg ci kanamu jàkka ji ne ilimaan ñëwal ilimaan bu ñëwee lu muy wax na dugg àjjana day ñëw ne yàlla kii sa jaam la sa doomu jaam bu góor la ak sa doomu jaam bu jigéen ñëpp ne ñëpp ne dëgg la kay dëgg la de est-ce que lu tax tey kenn féttéerlawul lu tax kenn cëpp cëppiwul bu imaam jullee ba pare dañuy jël anawaa fu ñu jëm armeel ya kon nag mbokki jullit yi bu ñu nax sunu bopp nañu góorgóorlu xam ne yàlla li mu wax subhaanahu wa taala ci bokkaale ku dee dajeg yàlla yaa ngi bokkaale man maata wa huwa yad'u min dunillahi fekk bi ngay dee yaa ngi woo keneen ku dul yàlla yonent bi nee na yow doo texe daxalan naar laaj nañ yonent bi alayhi salaatu salaam bàkkaar yi ban bàkkaar moo ci gën a rëy mu ne an taj'ala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga utal yàlla ndend te xam nga ne yàlla la bind waaw jox naa leen ci sànq rek misaal ki woor ba ngoon woote téléphone dafa leen ma ginaar waaye ndogu mu ñëw fekk ndogu boobu benn góor tiim ko tëdd ci kaw lalam soxnaam di peñe sikkimam mu ne soxnaam kii kan la soxnaam ne ko kii moo aya tey ndax waajoo dina ndogu ginaar gi damay laajte yéen góor ñi laay laaj laajuma jigéen ndax ku moom ginaar googu di nga ko ndogoo doo tal ndogu keroog waa lan la la soxna si def ba ndogu woo lan la la def ba ndogu woo daf laa dendale keneen ah léegi nag yow nga bëgg a jël yàlla di ko dendale keneen yow it yow yaa gën a tooñ wala moo tax yàlla bëggul ku ko dendale kenn moo tax dafa fiir moom yàlla subhanahu wa taala bu ko dendaleeg lenn moom rek bis boo jaaxlee bis boo nekkee ci jafe-jafe bul dem ci ma sàmba bul dem ci ma demba defal lii ma lay sant demal nga jàpp dugalal sa siyaana sa biir néeg jullil ñaar raak su jóotal ñaanal yàlla yàllaa ngi lay dégg nga xool waaye duñ def noonu dañu amay jafe-jafe takku ay da ku ñëw di la gunge ndumbe ñëw sooda ñëw ñëpp ñëw ngeen jël oto tararari utali dëkk ñëw fekk benn waay boo xam ne ci néegu ñax lay fanaan dara amu ko lu mu ndëkkee tey sax amu ko ngeen ñëw naan ko ñun kay dañoo jaaxle dañoo dañ laa dégg rek ne yow moom moom moo leen gën a jaaxle moom mu dëkk ci àll bi nekk ci néegu ñax su mu doon dara kay du dëkk foofu waa ji amul sax mbaam amul dara day dox yéen bi ngeen di ñëw yéen ngeen indi 4-4 bi ngeen ñëwee laluñu sax mat la ay der lañ leen leeral ngeen toog amul sax mat la bu mu tëdd kooku kay su mu doon dara tukulóor yi nee nañ dudd korkor si na nafar no yow tuute réew du mu wala ah waaw léegi yow waa ji sama yaay nee na dafa dugg benn super super bi tourné rek am ko taxaw naan day baax gars yi di ko jox ay juróomi dërëm kum ne day baax rek ñu jox ko juróomi dërëm mu ne sama yaay day baax mu ne ko baax na ba pare rek nit ñi commencé waaw am na ñoo xam ne ah gëmuñu kii gis ngeen kii dafa demoon fële mu liggéey bi mu liggéey pare mu dë mu dóor jaas bi ci baaraam bi sëñ bi mu ne ko yow koo joxoñ baaraam bi ne ko day baax day baax sama yaay ne leen hé jarul muy taxaw fii na joxoñ boppam ne day baax mu baax jarul muy taxaw ci tali bi comme kay ku mu joxoñ rek affaire am baax moom tee moo joxoñ boppam mu ne na baax wala waaw mais mais nit ñi duñu muus da ngay gis koo xam ne naan lii ma yore ku ma ko jox jox ko sa bopp mais jox ko sa bopp nga noppalu waaye déedéet waa ji day jóge dëkk ak dëkk ñëw fii lal ay der deru bukki deru segg ba pare di la ko jaay nga koy jënd te moom mu jóge Mali wala mu jóge Guinée wala mu jóge Niger mu ñëw fii di la nax su mënoon dara du toog foofu defal ko boppam gars yi nañ yeewu kon incha allah première partie bi jeex na dañuy julli léegi takkusaan ñëwaat daal di jël beneen conférence bi muy bidaa xam ngeen sirk lañ doon wax bidaa moo ci des ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala liñ fi jot a wax yàlla def ci ñun dégg ak topp buñ jullee léegi takkusaan buñ ñëwaatee dañuy jël beneen partie bi muy bidaa salaamaaleykum wa rahmatullah